daarul arqam pencum jàngukaay daarul arqam kërum yaruwaay daarul arqam baabu xamikaay saxaabay falandan jàngee daarul arqam kërum yaruwaay muhammad rasul moo leen dan xa alhamdulilahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwan illa ala zalimin thumma asalaatu ma assalaam ala ashrafi al anbiya wal mursalin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ala ashabihi al mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñi seetaan si Jotna TV dellusiwaat nañ beneen yoon ñëwaat seen émission Daaru Arqam ma ci ànd ak sama mbokk sama xarit imaamuna imaam Mouhamed Bari imaam salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakatu imaam Hamid alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kontaan encore une fois euh, toogaat macha allah euh, ci suñu kër gi daarul arqam ibn abil arqam ak suñu imaam imaam Hamid hmm. euh, ndax mooy que ni xéewal yi nekk ci weer wi muy weeru koor. macha ñaan borom sant la yàlla nangul ñu ko. jërëjëf boole. min awliyaahi saalihiin wa min ibaadihi almuxlisiin almuxlisiin almuqarrabiin amiin amiin imaam comme ni nga ko waxee dugg nga ci ñoo ngi ci weeru koor mu nekk weer boo xam ne xam nañ li ci nekk ci ay ngëneel importance am ak ay bienfait am imaam mu nekk un mois de réflexion spirituelle mm. un mois de prière un mois d'intensification de dévotion et de principes islamiques mais également un mois d'amélioration de soi mu nekk benn weer boo xam ne imam weer la boo xam ne mun nañ ne un mois de réflexion spirituelle c'est-à-dire doomu aadama lu jëm ci wàllu ay xalaatam ay dégginam ay gisinam lépp day delluwaat ajuwaat ci li moom mooy ci wàllu spiritualité parce que atmosphère bi muy dund mooy atmosphère boo xam ne dafa ñëw nekk lu propice yaatal ko ak accueillir li nga xam ne moom mooy spiritualité boobu ci moom ba lu muy xalaat loolu la mais également mu nekk weer boo xam ne un mois de prière prière au sens large du terme nag moo xam ay ñaan la moo xam ay jëf ju baax la moo xam julli la mu nekk un mois d'amélioration de soi c'est-à-dire nit ki ni mu meloon weeru koor ñëw mu ne noo man weeru koor dugg na foog ma defaraat sama bopp daan naa julli mais du ma yem ci julli rek foog ma yokk ci naafila daan naa jàng alxuraan mais vendredi bi vendredi laa koy jàng mais non bii part dama koy jàng de façon quotidienne hmm. daan naa jàng alxuraan mais un mois bu un mois laa ko doon jàng wala occasionnellement wala accidentellement mais tey dama koy respecté jël benn genre wirdu nee na lii mooy sama li nga xam ne quotidiennement dama koy def ci wàllu alquran mu nekk loo xam ne nit ki day améliorer di defaraat boppam hmm. mais également un mois d' intensification de dévotion c' est à daan naa julli farate rek daan naa wax respecté nag mhm. mais bii pas dootuma yem ci farate yi non seulement dinaa naafila mais itam xiyaam dinaa def ay ay ay prière nocturne mhm. daan naa maye mais weeri koor su ñëwee foog ma gën a reyaat sama bopp di gën a mais nit daan noon nag nit ku tàng mais tey weeru ñëw na foog ma nekk nit ku sedd mhm. mu nekk weer boo xam ne nit ki lu jëm ci wala ay pratiquem daf ko defaraat mais lu jëm ci wàllu ay li ñu tuddee afkaar mooy ci ay ay pensem mm. ay réflexion am daf ko soppiwaat mais mu nekk weer boo xam ne tey nit ki léppam ndeysaan mm. delwaan ci borom subhanahu mm. wa taala bon imam soo wax ci importance weeru koor bi ñu ñëwaat après ci bienfait yi ciy wax isa imam imam encore une fois sant borom bi subhanahu wa taala mi nga xamante ni moom moo ñu may ñu fekkewaat weeru koor gi ndax comme nañ koy faral di wax mooy ñu bari fekke woon nañ ko bee paase ak yeneen ak yeneen mais bi fekkee wuñ ko ñun am nañ ay xarit yu bari yoo xam ne tey suufa nekk seen kaw allahuma axfir lahum warhamhum ñu gaa ñëpp yal na yàlla yërëm leen xare leen aljanna mm. ah ñi feebar yàlla tamit may leen wér ñu nekk ci hôpitaux yeeg ci kër yi wala di doxantoog feebar ah, ñu nit yàlla yàlla sàmm ñu ñu may ñu mujj bu rafet allahuma amin yàlla defal ñu jàmm senegal vraiment weeru koor gi imam ah, da nga fay wax loo xam ne lu am solo la dañ naan chahru taxir la allahu akbar chahrul islah c'est un mois de réforme weer la woo xam ne nit ki day defaraat boppam diggante ma kan digganteem ak boromam waaye digganteem ak ñi mu dëkkal dëgg nga wax sànq mooy nit ki loolu nag pour nit ki def ko mooy faw mu dugg ci beneen niveau bi mooy asabr nit ki mën a muñ tàmmoon mbir weeru ko ñëw nga bàyyi mbir moom ndax baaxul mhm. nga yéexoon ci mbir weeru ko ñëw nga accéléré ndax dafa baax nga war cee sonn mooy julli beeg koor mm-hmm. beeg yooyu kon weeru koor weer la woo xamante ni bu ñu xamoon importance bi imam ah doon nañ bébét de suñu dund yëpp nekk weeru koor imam lu tax mooy mm-hmm. mën naa ci ay jël ay points yu bari ci bien fait mais dama ciy jël ben rek mm-hmm. benn ma ciy jël imam muy weer woo xamante ni yàlla def ci jéggal nit ñi yërëm leen ci mhm. allahu akbar mhm. Mhm. jéggal la ci say bàkkaar yërëm la ci dugal la aljanna imaam adduna bi problème yi am yëpp problème yi ñu tardel yëpp mooy bàkkaar la imaam loolu bu koy yàlla dindee ndax chaque guddi ci weeru koor borom subhanahu wa day goreel ay nit safara du ñu dem safara yàlla yërëm leen dugal leen aljanna yàlla nañ ci bokk ñu ci ubbi buntu aljanna yi duñ ci tej benn ñu ci tëj buntu safara yi duñ ci ubbi benn mhm. te li nga xamante ne moom mooy shayatin yi imaam lii lii ku ko rate rate nga xol bu yëngatuwul ci weer bi kañ lay yëngatu ku tuubul dellu ci yàlla ci weer bi kañ lay dellu non xam nga imaam compréhension bi nga am ci weeru koor bi nii ñu ñu jiitu woon ci lislaam compréhension bi lañ am ndeysaan moo tax ñoom weeru koor su doon ñëw dañ koy gàttalu six mois. allahu ñoom lu ñu ne des na benn mois weeru koor de. Mm. mais su desee six mois dañuy commencé di préparer parce que xam nañ fan lañ war a jëm. bokk weeru koor su jàllee six mois dañ koy gungewaat weeru koor ñoom. ba nga gis ne dañuy jooy parce que lu tax weeru koor a ngi dem. mais suñu déggee moo ngi ñëw nga gis ñu commencé di reetaan di kontaan mooy li nga wax léegi lu am solo la. imaam euh, weeru koor mooy comme ni nga ko waxee sànq mooy weer la woo xam ne. suñ ci duggee ba génn ci mooy am na neneen nu ñu war a mel bu doon dañuy sàggane julli loolu day dañ bu doon daanuñu julli loolu day dañ bu doon dañ mooy suñ digganteeg suñu borom ndax xam nga sa digganteeg sa borom mën na rafet imaam nga ñëw bés penc yàlla mbugal la ndax la mooy sa digganteeg ñi nga dëkkal dëgg tey ñaata ñoo fi tooñ ay nit ñaata ñoo fi lekk alal nit ci caaxaan ñaata ñoo fi détourné alal ñaata ñoo fi jëw ñaata ñoo fi nekk lekk mu nga alal ji tey mooy jeu de hasard ak yooyu ko dafa ñëw pour fexe ñu génn ci loolu mooy transcender ndax lan mooy que ni xéewal yi ci nekk ndax biir aljanna imam aljanna dafa neex de fiiha maa laa aynun ra'at wallaahi bët mësu ko gis wala udnun samiat nopp wala xatara ala qalbi ko xalaat allahu akbar kan mooy rate yoon bi nag weeru koor yoonu aljanna dëgg la ndax lan mooy que ni ku ko bëgg nag na góor góorgóorlu mooy jël décision ferme mooy weer wi nii xéewal yi ma ciy dégg ñoom imam Hamid ñoom macha allah ci ñu ci xutba weer wi aljanna mën naa ko ci am te nag xaw ma ndax beneen weer di koor dina ma fekkaat kon weer wi du ma ko rat damay tuub gis nga imam gis nga aspect yi ngay wax bu jëm ci wàllu spiritualité sunu borom dafa yéeme gis nga koor au delà liñ ci jàpp lu jëm ci wàllu jaamu yàlla bi mais li jëm ci wàllu bien-être doomu aadama daf ci feeñ su njëlee koor rek bien feey nekk ci yaramu doomu adama benn dafay permettre nit mu raxas yaramam dafay permettre doomu aadama lépp li nga xam ne mooy li ñu tuddee le mauvais cholestérol da koy dindi li ñu tuddee les toxines nocives da koy éliminer mais l'appareil digestif da koy nettoyer mooy moyen bu gën a gaaw pour nettoyer appareil digestif doomu adama gis nga experts yi dañoo constater benn mbir ñu ne nit ki la fait muy muy muy muy bañ a lekk dans la journée loolu dafay permettre li nga xam ne moom mooy yaram bi mu développer yeneen cellules yoo xam ne dafay lutter contre ay feebar rawatina les maladies cardiovasculaires nit nga am problème xol soo koy am. koor yi ngay woor ci bëccëg bi rek da dimbali ba nga xam ne loolu da koy mën a xoola éviter da koy éliminer mais également li ñuy tuddee obésité nga xam ne nit ki da ngay rëy da koy dindi loolu lu koy waral mooy que ne nit ki dafa am grace bu nekk ci moom koor bi ngay woor noonu dafa non seulement da ngay perte li ñuy tuddee une perte de pois saine cest dire boobu day nekk perte de poids boo xam ne bu naturel lay doon mu lakk li nga xam ne moom mooy graisse bi ba pare tu vas en masse musculaire yaa ngi dégg ah maigre c'est-à-dire nit ki du pata mais day nekk koo xam ne xool dafay sec mais dafay dëgër mais dafay nekk koo xam ne ku sain lay doon loolu koor moo koy def ci doomu aadama beneen mbir bi imaam ba léegi man ñun dañuy spécialiste ñu jëm ci wàllu médecine mhm. mais suñu wàllu gëstu ak suñu wàllu liir dem na ba may ñu ñu gis ne li nga xam ne mooy scientifique yi dañoo def benn lien entre lu ñu tuddee l'alimentation ak la santé intestinal ak li ñu tuddee le bien-être mental li ma la wax lu yéemale imaam ci wàllu koor ñu ne naka de doomu aadama su fekkee day woor hmm. ñu ne koor googu muy koor day permettre yaram bi mu libérer ay cellules cellules yooyu muy libérer automatiquement cerveau bi lay dem attaque ji xam nga la may rôlam protéger le cerveau contre la dépression ba nga xam ni ko dootu a dof protéger la cerveau contre li nga xam ne moom lañ tuddee la démance ak l'anxiété mooy inquiétude stress yi nga xam lay dal naka tey am na ay cellules yoo xam ne corps rek boo ko mën a ci doomu aadama pour mu mën a ñëw ba ci cerveau bi yow di la protéger ci mbir yooyu saa suñu borom mais imam ah mais imam lii c'est-à-dire man donc corps dafa dafa dafa complet dafa complet ndax lan mooy sooy xool perfection bi mooy sa mbirum àdduna. wallaahi lii mbirum mooy que ni tu bien. tu es santé ainsi de suite. Mm. mais au delà de cette vie. même dans l'autre vie. koor gi da lay kii ndax man saama ramadaana. wallaahi wax waxtisaaban. gufira lahu maa taqaddama min faqad jaana. allah ku war weeru koor. oui ànd ak conviction. conviction xaar xéewal yi ci nekk. nga dëggu yàlla jéggal la say bakkaar non yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne perte na. koo xam ne weeru koor fekkee na ko te jéggaluñ ko ay bàkkaar. imaam dafa yéeme dafa yéeme moo tax gis nga koor soo gisee mu garaaw. allahu akbar dañoo ba borom xam dañoo wax naan ne. ci wàllu lislaam nit ki su fekkee ne dafa wooru ni mu waree ci moom dafa am ñaari mbir ju koy anime mooy la sérénité. day nekk ku dal xam nga soo wooree xool ni ngay mel man yow ne képp ku woor képp kuy xuloo yu nekk inni yaax man dama woor man nekk ku bëriwoon yëngudu sax xoolal fii Sénégal ba mm. baal ba gaay kii nga xool gaay suñu gis mais eh, nga ne ko waaye imam bari yaa doon kii bi imam tey da nga sedd de kon da ngay da ngay dal ah, ndax foo koy xam la <laughs> gis nga gis nga léegi nag au delà sérénité bi dafa am en plus leneen lu ci tegu xam nga mooy lan mm. mooy la paix intérieure da ngay ànd ja xoolal da ngay am benn jàmm boo xam ne intérieurement da ngay am ak sakina da ngay am quiétude da ngay am dal da ngay am jàmm yàlla mooy ala bi zikrillah shahru ramadan unzila fihi jeex na yàlla me ne alquran bi ngay jàng c' est par le zikr c' par le coran yaa ngi dégg ah, par la lecture du coran que hmm. les cœurs se tranquillisent coran boobu ñoo ko wàccee kañ kon moo tax moo tax paix boobu lu tax koy am mais jàng bi ngay jàng alquran boobu loolu te muy ñëw di feeñal ci yow mu dimbali la nag di repousser ñaari mbir ci yow li ñuy tuddee les désirs yoo xam ne vraiment malsain lay doon ak lépp li nga xam ne dérive la. kon imam nit ki bu wooree. oui wax dëgg yàlla soo duggee ci koor fexeel mooy sa digganteeg sa borom rafet waaye fexeel sa digganteeg nit ñi mooy say dëkkandoo mooy que ni bu dee am na koo ci yoreel àq delloo ko àqam hmm. bu fekkente ne am na koo xamante ni yoral nga ko xaalis koo xamante ni doon nga ko tooñ c'est-à-dire koor gi dafa war a nekk loo xam lu set la ndax alxuraan dafa laab alxuraan dafa set moo tax yàlla ci teral doomu aadama am na ci ay catégorie yu bari mais benn catégorie rek la ci woo teral ko mënoon na wax rek woor leen dëgg la wala moo tax plat mun nañ la ko toggal ñoo am nuñ la koy joxe plat bi neex te doo ko jël dëgg la nit mën na la may xaalis mu bari lool mais am nu la koy may doo ko jël mooy la façon de donner la façon moo tax yàlla doomu aadama def ko yëkkati hmm. woo ko tur bu gën a rafet ci tur yi daal di koy wax waxu koor mi nga xam ne yàllaa ko tànn muy koor gi tànn yonent bu ko wàccee mooy yonent sa sallam tànnal ñu weer bu ñu ko jox tànn ñun yàlla ne yaa ayyuha alladina amanu يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون imaam loolu mooy lan Allahu akbar xam nga suñu borom daf ñu woo am lum ñu jàngal mu ne yéen ñi gëm yàlla dañoo faratal ci yéen weeru koor xam nga su fi yemoon mun nañ jàpp ne ci ñun la commencé mais mu xamal nañu ne am na ñu leen jiitu woon kama kutiba ala alladina comme niñ ko faratalee ñu leen fi jiitoon loolu pour lan la pour ñaari mbir la dina motiver ñi nga xam ne ñoo ko a def ñoo xam ne mettiwul mm. parce que am nañu fi jaar def nañ ko réussir ko kon yow te war nga ko mën a def Muhammad tam nekkul lu bees si yow mu nekkul lu rëy mais imam lu ci am solo mooy li nga wax la hmm. la'allakum tattaqun mooy la crainte révérentielle bi nga xam ne moom la ñuy ut ci li nga xam moom mooy ci jaamu yàlla hmm. yàlla nee na ci taqwa bi nga xam ne yow yawmal qiyaam hmm. suñu taxawee yawma laa yanfa'un maalun wala banuun illaa ma atalla bi alal du fa njëriñ doom du fa njëriñ benn prestige amu fa njëriñ lu dul ku taxaw nga indi xol bu set wécc mais nga xam ne taw tawhid ak ragal yàlla moo ci am yàlla mi ne yaa koy mën a amee fi nga moom mooy ci weeru koor boobu imaam vraiment hmm. lii tam beneen bunt la ñuy tijjil xam naa dinañ ci ñëwaat yeneen émission macha allah mooy nakate du ñun rek ñoo doon woor am na ñun jiitu doon woor hmm. ba xatta ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi fi sax hmm. jàpp ne diine lañ yor nga xam ne bokkul ak diine révélé yi xam ne bokkul ak judaïsme bokkul ak christianisme mhm. mais soo jëlee hindouisme nga jël bouddhisme nga jël taoïsme yooyu ñëpp dañoo seen xeetu seen xeetu koor nu ñuy woore yëpp ñu xam ko mais am na lenn lu ñu boole ñun ñëpp mooy lan mooy la fekk nit ki di abstenir mhm. ci bañ a lekk ak bañ naan kon moom imam incha allah parce que émission bi léegi mu jeex mhm. dama lay won ne attirer attention doomu aadama yi jëm importance su koor au delà spiritualité bi sànq maa la koy wax nit ki suy woor li muy def ci moom. tey soo demee Occident jarumay tudd ay ay mm-hmm. turu dëkk bëri na ñoo xam ne suñu feebaree tey dañ leen defloo jet mm-hmm. nee leen léegi yow da ngay woor heure bi ba heure bi heure bi ba heure bi da koy woor ah, dana bi egg ci li nga xam ne mooy woor bi ñu tuddee le jeûne par intermittence ñu woor loola tey dog loola suba xoola yorante bi lu mu wax ci do wóoru yorante yàlla Daawud mu ne moo gën ci koor yi parce que jeune la boo xam ne jeune par intermittence day woor tey doog tey tey science tey dëggal na loolu imaam looy jeexalee foofu imaam imaam lu may jeexalee mooy euh, koor gi dafa rëy ku yàlla may nga fekke weeru koor fexeel nga sentir ni yow ci sa bopp weeru koor gi am na lum def ci yow de lan mooy sa fréquentation foo nekk fu ne fexeel yàlla kontaan ci yow fréquentation ba ci téléphone mhm. woor mais lan ngay seetaan tey ñaata ñooy woor mais ñu ngi sëgg ci lu xaraam ñaata ñooy woor ñu ngi mhm. ñaata ñooy woor ñu ngi dem fu xaram ñaata ñoy woor ñu ngi wax lu xaraam ñaata ñooy woor ñu ngi déglu lu xaraam te nag lii la inna sama wal basar wal fuaada kullu ulaika yàlla daf ñu koy laaj am na solo kon moom mooy lan moo gën a triste laay daane kon imam xel mm. kon bët ñu koy laaj làmmim dañu koy laaj. dañu koy laaj xol bi dañu koy laaj. noppi dañu koy laaj. imaam lu tax dañu koy laaj ndax lii matériel la. gis nga tey pour ñu wax dama yore micro. Mhm. matériel la. tey gis nga menuisier bi. il faut mu yore si matériel la. pour mu yore stylo wala boog benn craie. yàlla daf ñoo jox ay matériel imaam jox ñu ay jaamu yàlla yoo xam ne matériel yooyu lañ ko war a defee mooy weeru koor yàlla jox ñu bët jox ñu nopp jox ñu. moo tax yàlla mu ne bu leen jël matériel yooyu. ngir weddi ma mm-hmm. yàlla mu ne alam tara ila alladina baddalu nicmat allahi kufra ma ndax gisoo ñoo xam dañoo jël xéewal yu leen yàlla jox ñu ci mooy yàlla yàlla nañ ci yàlla musa weeru koor gi nañu fexe mu nekk weeru tuub waaye weeru sincérité suñu diggante ak suñu borom ndax le meilleur parmi nous c'est celui qui par le peu qu'il sait par le peu qu'il vit par le peu qu'il a se rapproche davantage de son créateur allahu akbar imaam lii am na solo buñ ci yokk ci leneen vraiment di leen jox dig daje hmm. beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu jërëjëf waay daarul arqam pencum jàngukaay daarul arqam كروم يا رواي دار الأرقام باب خمك سحابيك falan daan jànge daarul arqam kërum yaruwaay muhammad rasul moo leen daan